Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee activer walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage assalamu asalaamaaleykum mbokki internet du Sénégal 4 TV nañ bu mbégte ak contentement dikkat ak yéen ci chronique du jour chronique du jour da ngeen koy am ay bis nekk ci site bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV di ci ànd ak seen mbokk xarit sen soppé sen dom nday Assane Dia alias azul le Pro mbokk tay sen chronique du jour ñoo dik rek bëgg def jangat ci jaww li nga xamante ne ni boobee ba nëga ni mi ngay wëy di desu xambin fii ci biir réewum Sénégal euh, ñeel kii nga xamante ne ni moo di député Ousmane Sonko ak itam kii nga xamante ne ni moom la ñuy wax Adji Sarr mu mel ni démb euh, daal dinañuy daje fële ca assemblée nationale ngir teggi mbalaanul kiir laayoo ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko coow li bari na ci euh, média yi télévision yi rajo yi site internet yi Euh, boobee ba nag ni kenn ku ci nekk ma cay bay waaram kenn ku ci nekk ma nga cay wax la nga xam ni noonee la jàngate mbir mi euh, ñu baaxoon nag ci biir réewum senegal wax ni euh, démocratie mooy sunu ka dañuy wax ni Sénégal réewum démocratie la ba tax na lépp lu mënti xew ci réew mi kenn ku ci nekk rek da am sañ-sañu joxe ci sax xalaat waaye itam wax ni nga xamante ni yow noonu nga jàngate yëf tey fi nga xam ni foofu la bëgg a dut baaraam ci sunu wàllu chronique benn bi dafay reposé wu ci wàllu justice bu Sénégal ci ñàkk óolu gi nga xamante ne ni tey askanu wërngal kapp ñàkk nañu wóolu justice bu Sénégal waaye ci ba tey itam ci beneen wàll wi daañu wax itam ci ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ci jëmi boppam ak ñi nga xamante ne ni ñoo di ay jegeñaaleem li tax ma bëgg a tàmbalee chronique bi nag ci justice bu Sénégal mooy ñoom ci seen jëmmi bopp yëf yi ñoo ko waroon a jëlal seen bopp en charge ndax wolof dafay faral di lépp ni ku nuy jiiñ dëmm waruñu la fekk ngay soccoo yeelu liir te lu waay waxati waxati xam ni justice bu Sénégal seen der setul seen image rafetul du ay kàdduy Azou le Pro du ay cadre yu sénégalais lambda ndax buñu ñu ki nga xamanteni ni moo di juge Amidou dem ci ay bis yële ñu génn ginnaaw bi mu génnee ci benn sortie boo xamanteni ni euh, conseil supérieur magistrature bi ñoo ko doon amal moom ci jëmi boppam moom moo génn ci làmmiñam wax ni je démissionne d'une justice qui a démissionné et ce n'est pas n'importe qui moo wax wax boobu du n'importe qui mom mo wax bat bob muy ben ñaareel ba ki nga xamanteni ne nii moo di juge Téliko ci euh, ñi nga xamanteni ñom lañuy duppé union magistrature magistrat du Sénégal ñu wax UMS. kenn ku ci nekk gis na ci réew mi taxawaayam ci télévision yi ak yeneen plateau yi nga xamanteni ma nga fay toog di naqarlu ak di dénoncer maanaam ñàkk jëfu wala boog ñàkk rafetaayu liggéeyu justice bu Sénégal. bu nu sukkandikoo ci ñaar yi képp waroon na leen a doy sëkk ñoom justice bu Sénégal ngir ñu mën a relever défi ndax nag nit ki boo dee liggéey ci mbir saw der ñu di ko gàkkal di wax ni taq na la koy setal yow yaa ci war a njëkk a jóg bay ci sa tànk yow yaa war a njëkk a jóg xar ci sa tànk tubéy ba tuuma yooyee ñuy teg ci sa kaw nga fexe na ko teggee waye nous naa ni ci Sénégal ni nga xamanteni la justice bi di doxé ci biir Sénégal tay buñu ba y a de quoi douter ci depuis 1960 ak légui li fi jaar histoire li justice bu Sénégal toujours ñuy xaar ci ñom ngir ñu nek nek ay

bi fi toogee génne seen liste vingt cinq personnes daan ni ñii ñëpp war nañu leen topp kenn ku ne xam dafa mu mujje ba ci procès wu Karim Wade ñu jiñ ko combien de milliards presque plus de mille milliards ñu ni moom la moom la jël moom Karim juge boobu nga plus de mille milliards mom mo am ben protocole ak nga procureur bu Qatar mu jugé un Qatar ñëw ci biir réewum Sénégal na ciopet yob ba neugni ba ñu di wax ak kenn xamul ci norme kenn xamul procédure kenn xamul ci yan charte la ñu Karim ci Qatar ñi ko tuumalan démb ak bërki démb ñoo jaaraat ci suuf signewaat seeni protocole jël ko fii yóbbu Qatar bàyyi ko mu toog foofu loolu defe naa bu dee am cim réew y a de quoi dafay dem ba bi la nga xamante ne ni moom lañu doon moom lañu war a am ci suñu suñu suñu suñu justice muy la confiance dafay dagg ndax saa su nekk rek ak jamono bu mu mënti doon lépp lu mënti xew ci biir réew mi da ngay gis ni ñi faré ci gouvernement bi dañuy défendre ñom sen position ñi faré ci opposition bi défendre sen position tay bu ñu ñëwee tay ci li nga xamanteni ni mom mo xew diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr xeyna ñun buñ ci wax dañuy nekk à l'aise parce que faruñu fii faruñu fee on est au pôle nord ñu seen yónnewu ci mais à chaque fois en tant que sénégalais buy suivre débat yi en tant que sénégalais buy suivre actualité bi di xool fi mu tollu bu ñu invité ku bokk ci nguur gi yitteem yépp daf koy jëmal ci taqal Sonko setal Adji Sarr bu ngeen bàyyee xel bu baax a baax a baax même avant levée immunité parlementaire bi di am saa bu ñu invité wala koo xamante ne nii ci nguur gi la bokk bu yëkkatee ay kàddoom rek kàddu yépp daf koy jëmal ci taqal Sonko setal aji mais leneen li ma ci jaaxal moo di ku fare nag ci opposition bi bu waxee dangay gis ni dafay jéema a aji setal Sonko bu ñu demee bay gis ay jege ñaalay Ousmane Sonko atte na toog ci plateau télévisé génne kaamilu alquran di ci waat di wax ni Ousmane Sonko séqul dara ak Adji Sarr les gis nañu ay partisan wu usmaan Sonko yu mu jaral ñu génne kaamilu alxuraan teg ci kaw taabul bi dóor ci seen loxo ñemee wat seen aqula itaala ni dara xewul et pourtant kii ndey mbill gi nu ko jiiñ ci jëmmi boppam sañu ko tax ndax defagu ko li tax nag ma ni ginnaaw bu ñu waxee ci wàllu justice ci ñàkk confiance bi nga xam ni tey ñoom ñoo def li tax askan wi ñàkk leen wuulu ba liggéey bu war a tege ci seenu loxo ñëpp am ci xel ñaar ñoom la waaye man Ousmane Sonko dina ko blâmer ci benn côté ci sama xalaatu bopp kilifa gu tol noonu cim réew comme ni ma que di man Ousmane Sonko je ne suis pas n'importe qui et effectivement il a raison Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui dans ce pays yalla dogal nga am ñaari soxna yow Sonko ñu jiiñ la lu toll ni viol ni da nga egg ci sama kaw yamun ju ci jiiñ la parce que il faut que sénégalais comprennent comprendre aussi aji Sarr dafa def au delà de jiñ Ousmane Sonko ndax bu fekkoon ni dafa dem ci plateau télé yi wala ci rajo yi di jiñ di wax ni waaw lii la waaw lii la laa mën nañu wax ni affaire bi ci jiiñ la yem mais daf ko jaral mu sol dàllam dem porter ko plainte xaatim ni man lii may wax aji Sarr dëgg la. ndeem Adji Sarr simple sénégalais lambda moo mën a jaar ciw yoon dem ba fa ni bindee këyit bind ni yaa def tey sa tolluwaay ci réew mi li ngay sàkku ak sax ñi nga xam ni ñoom la la yàlla booleel di say soxna waroon nañ la jaral waroon nañ la jaral nga jóg dem ngir setal yi sa der je suis contre levée immunité parlementaire bi niñ ko defee démb Ousmane Sonko ci sama xalaatu bopp warul woon sax xaar ñuy teggi mbalaanum kiir laayam man bu doon man la ma yor ñaari soxna xale bu jigéen jiiñ ma viol benn yemul ci jiiñ ma waaye mu dem porte ma plainte pour dëkkal jiiñ bi mu may jiiñ bu fekkee ni am na lenn lu ma mën a tënk ba dox ci sama digganteeg dem leerale ji lool man maa koy njëkk a dindil sama bopp def ko ngir sama bopp def ko ngir ñi ma bëgg waaye def ko ngir samay soxna ak samay njaboot donc ci sama sama xalaat bu gàtt foofu la doon xaar Ousmane Sonko a ce que moom moom moom moom futteekul boppam wax ni maa ngi ni acca nañu dem ñu leeral mais toujours nga bëgg a bootu ci sa euh, li ñu la jox di immunité bi di wax ni lii warul am lii warul am waruma dem duma ko dem te itam duma ko leeral damay bàyyi ñépp ci kumpa duma ko leeral même samay soxna dama leen di bàyyi ci kumpa li xew kumpa loola kumpa loola kumpa loola dans quel pays sommes-nous ma ne nga xamante ni ñoo ci jóg di ci xeex duma ci blâmer kenn duma ci blâmer kenn ay jotna ñuy démé ak sunu xel ñun la jeunesse sénégalaise jotna ñuy démé ak sunu xel ñun la jeunesse sénégalaise xayan nak ku dégg séeréer mbokk yi li lañ leen indiloon tey ci seen chronique du jour ngeen ko doon teewlu fii ci seen site bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le ngeen ci doon àndal di leen jox rek dig daje incha allah rabbi ay bisi di ñëw ci beneen chronique asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu